ngir taxawaay bu mu am ci biir Sénégal ak ci kuréel gu mag gale université waaye muy soxna Amsatou Sow Sidibé du sunu yaay te wax naa ko léegi yar ak teggin ak xam-xam ci lañuy ñuy teg suñu lépp saa bu ñu gisee kuy yëngu ci yar ak teggin ak xam-xam mënuñoo def lu dul fonk ko ak bëgg ko liñ ciy wax du bari ndax bokk na ci li ñuy ñaan sunu borom mooy mu defal ñu ñu mën a xajoo lu gën a rëy lii nga xamante ni jàpp nañu ne ab incompréhension rek la réeroo bu am rek la ci xëy na ñamu yónni woon ñu ñëw daje ak ñi nga xamante ni ñoom lañu leen boole loon Sëriñ Njaay dina si dellu si léegi leeral ko lii ngeen ci dégg lu ci bari demewul noonu wax ji nag bari na waaye nii la deme moom dey dafa amoon yéene ci ñun bunge ñu ci liggéey bi comme ni ko jëmm yi defe sunu borom dogal mu daldi bind ñu dafa am yéene ñu ànd liggéey bi fekk na sax sunu borom dogal na ñu nekkuñu woon fii nga xamante ni moom mooy Dakar ñoo ngi woon daje ak sénégalais yi ñoo ngi woon ci biir réew mi ba ñu dajee ba ba ba ba ko ba ba ma ko sàkkoo ma dal di koy boole ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon Dakar yàlla dogal dajewul sax ak sunu jëmm gisantewuñ mu daal di ne dafa bëgg ànd ak ñun dafa bëgg yit ci list bi nga xamante ni moom mooy list nationale mu daal di ñëw nag ci ñaareelu place bi ñu daal di ne ñun dey bañuñu nag ànd ak ku mel ni yow ndax sa xam-xam ak sa jaar-jaar ak sa taxawaay waaye nag bu ñu sañoon dañ koy waxtaane ci wàllu représentativité mooy koo xamante ni dayoom dafay am nu mu méngoo ak ñun ni ñu tëggee charte yi nga xamante ni moom la ñu bëgg ñoo ñu dugg assemblée nationale ànd ak ñun amee. mu daldi am lu mu yónnee ci ay parrainage ba mu yónnee loolu ñu daldi koy saytu ba ñu ko saytoo daal gis ne kat moom xëy na njuumte am na ci ndax la mu yónnee bañ ko saytoo dañoo gis ne kat baaxul woon ba mu baaxul it kañ ko ka ko indi woon ci kanamam lañ ko saytoo jëlaat li nga xamante ni moom mooy kele bi jox ko ko jëlaat li nga xamante ni moom mooy document yi jébbal ko ko di seedeel yàlla ne jëfandikoo wuñ ci dara ndax jëmm yi ñu àndal liggéey bi ñu def ci parenage kenn ku ci nekk daanaka yow rek mataloon nga ko waxuma laa ñun sunuy sabab yi nga xamante ni def nañu lii ñuy def lu métti la ci ñun ndax ku ñu wormaal la ku ñu sopp la sunu yaay la waaye gor yi ñu àndal seen der ñoom ñoo ko moom moo tax teggi tuuma bi mënta ñàkk waxtaan nañ ci waxtaan yu yàgg bu ñu sañoon sax du ko defe nii waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu bëgg sopp ñu di ñu gunge ci liggéey bi leeral yi leeral ko mënta ñàkk moo tax ñu leerale ko nii ndax kàddu goo xamante ni sàmm nañu ko ak loo xamante ni muy worma loo xamante ni moom la ñu waa Sénégal xame moom la ñu nawe moom la ñu bëgge moom la ñu bëgge jëmm yii ànd ak ñun kenn ku ci nekk fa nga dëkk tey fu la neex ngay daagu fu la neex ngay jaar kenn ku ci nekk ci ñoom taxawaay mat na lool seen der nag ñoom ñoo ko moom moo tax fawu nag ñu setal ko loolu rek moo tax ñu ne woon dinañ ci yëkkati kàddu yi waaye xam nañ yéeneem si ñun xam nañ it cofeel lam bi mu am ci ñun ñu nit cofeel cofeel bu ñu tollu lañu am ci moom ndax cër bu ñu ko jox xam di yitte bi mu am ci Sénégal ak Afrique nekk une sommité dans le milieu universitaire et intellectuel ñu bari jaar ci loxoom xamee ci loxoom kon moom Sénégal daf ko ameel njukkal ñu nit dañ ko ameel njukkan ñi li ci juum yépp ak ñi ci juum yépp ñoo ngi leen di jéggal yàlla rek tax di leen gërëm it ci itte bi ñu am ñooñu nga xam dañoo nekk ci milieu universitaire di suñu yaay ak suñuy papa nga xamante ni bi ñu déggee mbir mi woo nañ ñu daal di ñuy fësal seen cant ak seen taxawaay ak seen itte bi ñu am ngir liggéey bi ñuy defal ndawi Sénégal di ko defal suñu yaay yi ak suñu papa yi di ko defal kilifay Sénégal ñu mën ko eggale ci jàmm ak salaam loolu daal dañu bëggoon a leeral di leen gërëm di leen sant di leen wax aussi ngeen ñoo ngi leen di tàllal loxo ngir ngeen ñaanal ñu ngir liggéey bi ñu tàmbali woon te bii li jéego bu njëkk bi muy parrainage bi yàlla defal ñu ci tawféex ñu ànd ci ak gor yi ak jàmbar yi góor yi ak jigéen ñi ndaw ñi ak mag yi ba yàlla defal ñu ci kat lu am solo ñu romb ko ñu romb ko romb boo xamante ni bu am solo la mu des nag yeneen euh, jéego yi nga xamante ni ngeen ñaanal ñu ñu romb ko ba nga xamante ni sunu candidature dinañ ko valider définitivement ñu daal di ñëw fekk si leen nag fu ngeen mën di nekk